maa ngi tudd Ibrahima Diouf waaw dekk Niakhar waaw nekk Niakhar di fi liggéey waaw si walu ñaw ñaw ñaw nak bi man dama doon jàng école waaw bi ma doon jàng école ma dem ba si digg bi waaw sama xel génn génn si école quoi léegi après ma ne téer lay def léegi ma dugg si wàllu ñaw bi waaw bi may ñaw tamit fii laa déparé Niakhar bi fi laa ba mën dara bari ma dogo dem Dakar eggali fofu ñëwaat ñaar ibi sama atelier non neexul mom, liggéey mom neexul mom nek nekk na loo xamante ne neexul wa dang koy gëm rek soko gëmé dal wa nga japp dina dina dina dina neex wa liggéey bi dal, ma ngi ñaax sama mbokk yi ñi xamantene bëgg liggéey waaw ñu ñu nekk ci di góorgóorlu waaw yàlla baax na quoi waaw liggéey bi tamit mét méttiwul non du benn moom fii fii ak dagaar du benn ndax gars yi li ñuy li ñuy fay dagaar ak li ñuy fay fii du benn waaw mun ngaa dem Dakar gars yi dañ lay dañ lay fayloo piri bu normal waaye fii moom ñaaxar moom mooy loolu ñaaxar moom ay piri yoo xamante ne normalul quoi moom lañ lay fay. ah na noonu pourtant dañ ñu fiy bàyyi dem dem Dakar. ñaw li foofu ñawloo foofu bàyyi ñu fi loolu dafay am te bàyyi bàyyi ñu fi jël seen jël seen ñaw yi yóbbu ko Dakar dem ñawloo foofu te ñun ay ñaaxaar lañ ñaaxaar lañ dëkk te loolu du yoon parce que mënoon nañ dem dagaar ubbi foofu ab atelier di fa liggéeyee waaye dañoo ñëw suñu dëkk di fi liggéeyee waaye dañu fiy bàyyi dem foofu te pourtant ñaw bi yëpp benn la lii Dakar li ñëw rek moom la ñuy ñëw wala ñu ñëw lu ëpp loolu. fii nii pour nga am fourniture. maanaam pour loo def si si si si yére tay day jafe quoi am na bagage yoo xamante ne doo ko am fii il faut nga dem ba Fatick nga mun koo lijjanti foofu ñëw doog a commencé ñëw waaw jafe-jafe yooyu tamit am nañ ko waaw suñu amoon tamit ku ku ñu mën a jàppale pour mu ubbi fii mercerie bu mag boo xamante ne lépp lay am waaw ja ñaw bi ñaw bi dina avancé waaw clients yi clients yi waaw xew yi moom xew mom moom su ñëwee moom dañuy ñëw moom tey moom dañuy ñëw ba ba ba dañuy xat ñëpp ñëppay xat ko koo jox sa ñëw mu ne la instant eh, yi aw ma jot xëy moom su ñëwee moom tey rëpp ay gis seen bopp si ñëw bi client ay hôtesse ay hôtesse lay doon ay maanaam làmb su amee gars yi dañuy def hôtesse ay ceet ay ceet yooyu yooyu mooy am hôtesse waaw ñi ñi nga xamante ne dañuy am ñaw xew bàyyi ñu fi dem ba Dakar di ñawloo foofu loolu tamit rafetul quoi parce que ñun fii lañ dëkk suñu sañoon tamit loo leen munti am rek dangeen ngeen koy indi fii ñu bokk ko ñun ñëpp parce que fii kenn kenn doo jox net doo jox kenn sa ñaw mu yàq ko loolu loolu moom xam naa ko nit ku nekk da ngay ñaw lu rafet waaw loolu moo fi ne loolu daal moom moom la ñuy def daal. fii nii waaw am nañu fiy jaay ay tissus waaye matul daal am na yoo xamante ne amu doo ko am fii. il faut nga génn xam naa daal suñu amoon daal koo xamante ne messagerie bu mag lay lay doon lépp mooy am ci biir xam naa ne suñu ñëw moom dina gën avancé loolu moom xam naa ko